Euh, projet de loi bi nga xamante ne euh, président de la république daf ko wootee en urgence pour ñu entériner ko société boo xamante ne euh, dafa nekk société boo xamante ne dafay toppatoo liy waay lu mbalit ci dëkk bi wax dëgg yàlla li nga xamante ne lañ ci waroon wax yëpp wax lu ci bari wax nañ ko commission waaye boo ci génnee di nga am sax yenn saa yi yi dolli waat ci waaye xam naa ni tey daf ko nécessaire parce que vraiment euh, ki nga xamante ne tey moom mooy yore euh, gestion des déchets euh, remplacer fi xëy na peut-être ay Sowadip ak yu mel noonu muy lu mel ni UCG UCG boobu tey ñun note nañ ni ñu ngi liggéey liggéey bu am solo parce que ci ngay romb aussi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi ñu nekk ci tali bi chaque fois parce que moom rek nga mën a teg sa bët ni am na ay recrutement man yeneen yi xaw ma fu ñu jaar. mais dans l'UCG tu peux mun nga xool que ni am na ay recrutement te tamit dafa wone ni patriotisme am na Sénégal parce que am na ñoo xamante ni tey duñ doon ragal di nekk si mbedd mi di bale ak di di tonni mbalit tey jigéen ñi ak góor ñi ñëpp euh, ñu ngi taxaw ci commune boo mën a dem ci Sénégal nag parce que dem naa fenn ànd ak benn nit fu sori mu ne ma waa léegi du UCG ma ne UCG fépp lay nekk parce que commune yëpp lañ koy def ndax projet la boo xamante ne projet national la donc lu am solo la euh, ñu ci dolli lii lii nag man li ma si gën a yaakaar te gën ko si bëgg mooy gestion des déchets solides parce que xam nga UCG ay liggéey manuel la ñuy def maanaam bale ci suuf for carton for carte dajale tonni dindi suuf mais am na dëkk bi ay oto yoo xamante ne 30 ans ñi ngi gaare benn place loolu lañu ñu war a commencer déjà ut foo xamante ne. comme li européens yi di def centre de démolition centre yu yàq ay oto yu yàqu yoo xam ne amalatuñ seen borom njariñ ñu ko fay sànni genre cimetière des euh, déchets solides loolu dafa war a commencer am au Sénégal et jàpp naa ne avec cette société la ak li ma gis travail d'engagement euh, bi ma gis ci le directeur de l'UCG je pense que bii nii dinañ ko ci yokk rek dinañ ci am résultat parce que aussi man damay lire ci moom que ni. c'est un immigré de retour donc liggéeyam ak euh, taxawaay bi mu am daal bokkul ak yenn taxawaay yi nga xamante ne euh, yenn directeur général dañ ko am parce que vraiment il travaille pour un résultat parce que man loolu rek laa gis man aw ma ci importance aw ma ci intérêt man je me toujours dit que du ma nihiliste suñu defee lu baax ma wax ko suñu deful lu baax fii laay toog di la ko wax nga di ko dégg vraiment c'est un travailleur loolu laa gis ci moom moo tax ma wax ko.